waaw te xam ne nag ñun ay jeunes lañ ñu déterminé wu ñu dëkk fii ci Grand Thiès ànd ci ak Babacar Diallo di ko soutenir ci lépp lu mu nekk. di xam ne nag yoon bi métti woon na trop tey sant nañ yàlla bu baax a baax di gërëmaat Babacar Diallo mi ñu àndal muy suñu di xam ne nag Babacar Diallo dañoo ànd moom tey journée bi sociale lañ ko doon jàppale xale yi nga xamante seeni waajur dinañ am ay problème mu ay kaye ay saak ay fourniture lépp lu jëm ci école ñu ànd cee nag moom di jàppale nekk luñ mën ci suñu doole di remercier nag Babacar Diallo encore une fois bu baax a baax ndax daf ñoo jàppale wax dëgg fa ba ñëpp di xam ne nag ci ñun créé na ci ay emploi yu bëri jàppale na ci ay nit yu bëri te boobu dara xiiru ko ci daf ñoo gis ne ay jeunes ci biir koñ bi bi déterminé wu mu ne daf ñuy jàppale xam ne nag du ma wax ji te it fi nekk di cité ñun jël wala ñun jàppale mais ñu ngi sant bu baax a baax encore une fois di remercier Siré Dia bi nga xamante ne ñun mooy suñu doole mooy suñu lépp encore une fois ma encore une fois pour xam ko di xam ne que ni Babacar Diallo yoonam yoonu yokkute la may ñaan képp kuy jeune nga ñëw jàpp ci parce que liggéey bi ñëpp xam nañ ci yaatal nañ ko ba ne mën nga cee dugal sa loxo voilà di remercier mbooloo mi ñëpp ku ci nekk ñu ngi lay sant di la gërëm xam ne teewaay yi rafet na ku ci nekk ñu ngi lay sant di la gërëm. Madou ay jeunes lañu mais dañoo am ay njiit yoo xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale ku ci mel ni Babacar Diallo Babacar Diallo mënul dem sans l'aide de Siré Dia loolu ñëpp dañ ko war a xam Babacar Diallo ak Siré Dia benn lañu du ñu ñaar benn lañu réeroowuñu ci ay kàddu Babacar Diallo mbiru social moo ko yëkkati ñun waa jeune Grand Thiès dañ ciy ànd di ko jàppale bu baax tey jii journée sociale la nañ ko tuddee journée sociale gis ngeen li fi taxaw lépp ci ay xale. Babacar Diallo yëkkati ay kaye daal di leen koy jox encore une dama leen di ñaan li ngeen nit ñi bañ a féewale xol yi nañu booloo ñu doon benn ñu ànd liggéey parce que liggéey mooy doole. Babacar Diallo dafa doon nit koo xam ni xolam dafa yaatu Babacar Diallo du am mukk loo xam ni daf koy bett Babacar Diallo li muy def daf koy def ngir yàlla ak yonent bi seetu ci dara. xaarul kenn ci dara xaar lépp ci poosam la koy jële ñoo ngi remercier waa Benno Bokk Ya waa APR ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier parce que ku ci nekk dugal nga ci sa loxo autorité yi yëpp dugal nañ seen loxo Babacar Diallo dafa doon nit koo xam ni nit ku dëggu la nit ku amul amul problème nit ku social fi nekk nii affaire sociale moo ko yëkkati nañ dox ci social bi ñu jàppale ko ñun ñëpp ñu ànd nekk ci ginnaawam avec l'aide de Siré Dia ñun ñëpp ñu doon benn ñu jàppale Babacar Diallo moo gën féewaloo bi loolu laa amoon ci lu leen wax dama leen di ñaan ci journée bi jàllee nañu booloo ñun ñëpp ñu doon benn lii bañ a yàqu bañ a tas parce que lii dafa neex tey ku nekk indi sa doom ñu koy jox ay fourniture ñu koy jox lépp sa ku ci ku ci gestu ku ci ku gestu rek xam na ni lii nii benn nit mënu ko lii nii su doon benn nit dong ko mën kon du demee nii journée bii nii nii journée boo xam ni la journée journée spéciale la journée bu boo xam ni cat waru ci duggu dara waru ci dugg mais nag lii lépp lu ko waral benn nit la benn nit ba ñaari nit muy Babacar Diallo ak Siré Dia ay benn nit lañu loolu nañ ko xam ñun ñëpp loolu laa amoon ci lu ma leen di maa ngi leen di ñaan ngeen taaxiir lu ñu eggale li ñuy def ñu jox leen seen fourniture ngeen dem merci ji teg le premier adjoint au maire Cheikh di nuyu le chef de quartier di nuyu imam ak nit ñoo xam tey déplacé nañu pour ñëw ci cérémonie bi je crois que tey li ñu fi dajale mooy ñi fi jaar ñëpp wax nañ ko mooy tey c'est une journée sociale Babacar woote bëgg remetre ay fourniture xale yi dafa am benn xalaatkat boo nii wax ma ñan ñooy say jeunes ma wax la ban réew ngay am et tey je crois que réew boo koy tabax ni ko chef lu waxee fondement bi éducation mais jàng dafa metti parents yi aussi am ay difficultés xale yi ñu war leen a inscrire war leen wutal ay fourniture war leen wutal yére ñu sol war leen a jox paas bu ñuy jàngi war leen a jox loo xam ne aussi dañ koy teg loxo bu ñu demee am loo xam ne moom la ñuy donc su Babacar sentir loolu. jël ay fournitures li nga xam ne c'est important di ko jox xale yi pour aider seen jàng un matériel didactique je crois que loolu acte bu fort la boo xam ni pour le moment sax nit ñi mënaguñ koo mesurer nii parce que tey les gens sont dans l'effervescence mënoon ñuy waxee noonu mais li ñu def nii c'est extrêmement important parce que tey fournitures yi jox xale yi dina leen jariñ ëllëg parce que rien ne dit tey xale yi jël fournitures yi suba ay ministres bañ ca nekk pourquoi même le président de la république mais may terminer nii euh, Babacar li mu def nii peut être tey la tey la introduit mais ñun suñu relation ak Babacar sport moo ko moo ko wut man Babacar su ma juumul maa ngi ko xam en donc yàggul ñu dem Tambacounda Grand Thiès dem phase nationale moom mu nekk président ASC ñu ànd ak moom liggéey ci loolu bi ñu ñibbisee daanaka foofu lañu fasante suñu kuréel te boobu ba léegi amul dara loo xam ne dañ koy def. te Babacar dugal ci loxoom parfois sax ñun duñ ko xalaat moom moo ñuy woo ni ñu dégg naa da ngeen def dara maa ci def lii euh, bërki démb muy aarab bi passé bu mucc mucc ñu organiser final coupe maire mu woo ñu nañu final bi dégg naa ne mercredi ñu ko waaw mu ne lépp loo xam ni sonorisation la ndox boisson man maa ko jël en charge et loolu ñu waxuñu ko ko moom moo ko defal boppam te zone yi nga xam ne dañu organiser aussi moom danañ jàppale ci loolu su ay nitam bu ñu taxawee war nañu wax ñu xam ni sociale bi ngeen di wax nii du tey la commencé en tout cas ñun sport gis nañ ko bu yàgg di wax aussi beneen mbir euh, parce que ñu bëri ñu ngi wax Babacar Diallo Siré Dia ñun en tout cas mouvement navétane suñu xamee Siré Dia Babacar Diallo moo tax parce que yàgg na Thiès ñuy organiser musuñoo jot ci moom Babacar moo ñëw fekk ko sama bureau bëgg naa li ngeen def Siré Dia dugal ci loxoom la directeur de la mu ne ma da ngeen di bind lettre jox ma ko mu yóbbu ma bind lettre ba pare woo ko ñu daje ba koy jox lettre bi pour ma ah président tey de sa centre bi dafa lii de bëgg naa sëriñ bi mu doon na ci aw ñu ànd ba jur boobu laa ko soo gis te boobu ba léegi aussi sëriñ Jalle lépp lu ñuy def ci sport nañ ko ko wax mu dugal ci loxom te boo ba léegi aussi mi ngi koy def vraiment loolu rëccu ko mais loolu su amee ba moo tax donc su ay ay nitam taxawee ay mbokkam taxaw ñëw ci koñam. rafet nañu wax loolu moo tax suñu wooyee ñu wuy si invitation bi bu leen xoolee trois heures la ci man trois heures j'étais là ànd ak Matar Sy le VCF de la zone de VCF de Dakar trois heures ñëw këram fekk Babacar Diop benn chef ni ma yéen dina teel a ñëw man comme yow yaa trois heures ñëw trois heures mun dem leen ba six heures dem ngeen ñëwaat donc ñu dem six heures dem encore soo aussi dem parce que moom moo ñu ko di aussi dara la ñu def naan vraiment ñu koy sant ko gërëm di ñaan li mu def tey bu déwénee mu dépassé dem ci yeneen quartier parce que li ah jeune Grand Thiès xale Grand Thiès soxla ci fourniture yeneen yi à travers toute la ville ñu ngi sant ñëpp di nga xam ni ñoo fi ñëw. ànd ak seeni doom yëpp ñu di ko commencé ci avec wu Grand Thiès bu ñu nee avec Grand Thiès ñun ñëpp ñu ngi fi avec wu Somme ñu ngi fi Cité Senghor ñu ngi fi Cité Ñax ñu ngi fi Cité Lamine ñu ngi fi. Daaru Salaam ñi ngi fi waalandu leen ñi ngi fi waa dayu Daaru ngi fi ñi ngi fi Madina Fall ñi nekk ñoom it waa Elsan ñi ngi fi waa Sampaate ñi ngi fi waa Jaxaaw ñi ngi fi waa avec Sikal Malick Sy ñi ngi waaye waa Cité Lamine bu Soxna Cuun ñi ngi fi waa Tiwaawan sax ñëw nañ avec Tivaouane laa bokk. te te Tivaouane bi ma bokk it fële la DG poste si la jàpp la bokk moom it ndax ndax moom kenn rek moo ko ñoroon. muy Serigne Abdoul Aziz Sy Al te su ma ko waxee waa Costas la nii toog Serigne bi moo waxoon nii Tivaouane defar nañ ko defar bu rafet bu jéggi dayoo daal di ne ku def lu rëy ñu defal lu rëy kon tey jii su ma àndee le DG de la poste mu def lu rëy. ma fas yéene ko ànd ak moom defandoo ko lu rëy kon tey jii avec Tivaouane bu toogee fii ci jotaay bi su ma neexee ni kat moom laa àndal. daayira soppi na bi ñu ngi fi bu Grand Thiès daayira bi nga xam ni mooy daayira sëñ Abib Kunta bu Ndiassane ñu fi daayira bu Grand Thiès. bu Serigne Ousmane Bey ñu ngi fi daayira bu son aussi ñu ngi fi waaye nag waa kër Baye Niass ñi ngi fi ñoom it le président bu région de Thiès mi ngi nii toog Serigne Bey ko yabal ne ko ñëwal nga tees mbiru la jeunesse de Grand Thiès te Babacar Diallo jiite mu nekk ci gannaaw derrière le directeur général de la poste honorable député Siré Dia Jaxu Sall teewal ko fi moom it nii waa mouvement bu Grand Thiès Pape Moussa di président bi sama rek nii waa teranga askan bi di Yoro Cissé Yoro Ba jiite ko mi ngi nii toog ànd ko le grand monsieur monsieur Ndaw ak seen jigéen bu baax mi ngi nii toog waaye bu ma paree ci waa Orange mais waa Kirène ñoom it ñu ngi waa Parcelles waa Fayu ñu ngi fi yaakaar naa ni su ma toogee fii di wax ñi fi nekk ñëpp ñëpp ci bis bi te yaakaar naa ni buñ fi teewee rek am naa yaakaar ni ki gën a tax ñu teewee fi mooy honorable député le DG de la Poste monsieur Siré Dia moom la ñu teewal ci lan ci social ndax social moom moo ñu tax tey jii waa jeunesse bu Grand Thiès lu waral social bi yaakaar naa ni mën nañ koo wax mu gàtt mooy dañoo gis ni Thiès région de Thiès tout Sénégal. ak fu waay mën a dëkk ñu déglu ñu déglu ñoom ñoom ñoo xalaat initiative bi bind ko tegal ma ko jox ma ko bind ko en français waaye comme xajut moo tax li si baa nii je pense que ñu ngi ci moom pour wax ko mais du ko wax en wolof laa koy waxee ndax temps bi yi. ñu dañoo gis ni dëkk bi xale yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci dëkk bi léeg dañuy am ay problème fourniture dañuy am ay problème seen école yi ñu ma dañoo bëggoon pour que ñu fexeel ñoom nu ñu dajalee xaalis jënd ko ay matériel jënd ko ay matériel ouverture u école ay saag ay bic ay cahier ay ardoise lépp ñun dañ koy dajale pour jënd ko ndax ñu mën ko jox askan bi terale leen ko ndax gis nañu ni xale yi ñoom ñooy ndaw ëllëg te xale yi jàppale leen moom mooy sunu ndam man leen mais yéen lan moo tax ngeen jékki-jékki xalaat loolu ñu ni ma dañoo gis ni yow dañoo doon gis ngay nekk di liggéey di taw di daanu di taw di taw yor sa moto di taw waaye ñu toog mu yàgg jékki-jékki gis la ngay liggéey pos ma ne leen waaw ñun moom ñu xool ni ki la jël gis la nga yor sa teraanga ba pare mu retourné jëlaat la dugal la ci pos ñu xam ni kooku gëm nañu ne kooku si social lay dox man leen muy kan ñu ni man muy le DG de la poste monsieur Pape Siré man leen waaw loolu kon bu ngeen ko defee ñëpp ngeen ci boole ndax bu ngeen xool ay jëfam moom def na ko fépp dajal na fépp fii jotaay bii ku fi mën a toog foo mën a toog am na kenn koo xam ni sa koñ si rajo gën na la amoo ci leen kon léegi lu ngeen bëgg ñu ne dañoo bëgg ànd ak yow waaye day nekk surprise nag mooy lan mooy ñu ànd ak yow defandoo yépp ci turu le DG de la poste monsieur Siré Dia pour joxeel ko ay remise ay kay ay ba nga xam ni xale yi bu ñu demee bi am problème pour jënd ay problème ouverture pour jënd ay matériel ouverture kon loolu suñ ko defee tey jii duma ne dugg nañ te du gàcce ndax def nañ ko fi nga xam ni fa lañ defee kon nag amuñu seen pay waaye di nuyu particulièrement le chef de quartier suñu Pape Assane Ba di nuyu le maire Cheikh Lo muy sama xarit waaye di nuyu aussi le représentant AFP Benno Bokk Yaakaar monsieur Diallo di nuyu représentante Ndeye Tické ngi fii toog di nuyu waa ODCAV bu Thiès Ousmane Diop jiite ko di nuyu waa COSCAS ñu ngi nii toog ah Serigne Babou bu Serigne Abdou Aziz Sy ñu ngi nii toog. jiite ko di nuyu ñi nga xam ne ñoo toog sama ginnaaw yépp di leen nuyu waaye di nuyu suñu sëriñ ñi nga xam ni mooy suñu le président régional bu waa Kër Baye Niass ñu ngi toog di leen wax ne leen rek que ni ñun lu ñu taxaw dugg lenn kese moo ñu taxaw dugg. muy remise bi ci social ndax dafa am benn école bu bees bu tijji nekk ca Parcelles Assainies école boobu école sociale la ñëw ànd ko ak man le directeur di monsieur Fall ànd ko ak monsieur Ndiaye ñëw ne ma comme gis nañ ci social la ngay dox li may wax am na njëriñ de ci social ngay dox kon. nañu àndandoo doxandoo social école bi tijji na sixième la ba terminal mu ni leen rek moo ko tax a jug social at bi yëpp mën nga fa jàng loo nekk nekk terminal benn yoon ngay fàcc at bi mu yombal ko loolu loolu loolu loolu man leen kon nag ñoo leen ñu àndandoo ko moo tax ñoom seen teewaay nekk ne ci ginnaaw tey jii boo def terminal yaakaar naa ni fay bi du bari lu tuuti la te classe bi vingt cinq personnes rek moo fay nekk te yaakaar naa ni école bu am solo la mu ànd ko am ñoom am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi am na seen doom yoo xam ne tàmbale na foofu te jeunesse bii di Grand Thiès ñoo leen jël en charge kon ñun lii ñu dox nii dafa nekk loo xam ni lu am njëriñ la lu am solo la ci askan bi ndax askan bi dara ñoru leen social moo leen ñor ndax nit ñi kenn mënu leen jënd nit ñi kenn mënu leen luye bu doon luye nit amul waaye xam nga ni ñi toog fii jàmm rek lañu seet ak ñoom kon ñu ngi leen di jaajëfal yi ñëpp ñu leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di vraiment jaajëfal ñu ngi leen di wax ni. amuñu seen pay yàlla mi nga xam ni moo am seen pay yal na leen yàlla fayal boppam yàlla bu mu nekk suñu mujjanteel activité sociale te am nañu yaakaar bu déwénee aussi balaa ñu fiy jógee dinañu tànn benn koñ boo xam ne fa lañ koy def ci mouvement yi nga xam ne ñoo fi nekk ci avec yi nga xam ne ñoo fi nekk ci benn koñ boo xam ne dinañ ko fa def bii mooy première édition.

TV